bi ngi liggéey ci lajnatu saqafiyati wal ittisalaat maanaam comité bi yore wàllu culturel ak communication waaye ci boobu laay liggéey waaw. ñu waxtaanee rek ci li ñu fi dajale tey ji waaw li ñu fi dajale doo moom mooy li fi dajale woon daaw rek mm, lu jëm ci journée culturelle Mame Cheikh Issa Diène li nga xam ni ren la troisième édition bi ñu ñu tuddee ko Mame Thierno Ibrahima Fati borom Daaru Mooti ngir kóllëre gu am solo gu mu moom itam ak Cheikh Issa Diène radiyallahu anhu te yaakaar naa ni documentaire boobu ñu weesu léegi kilifa yi développé nañ ci lu am solo waaye ba ci gën a fës rek mooy euh, seen ñaari way jur ñi ngi bokk tëdd fële ci Thièyène Jolof nga xam ni Serigne Touba moo leen fa dencal boppam loola yaakaar naa ni firnde bu mat la beneen ba ci topp it dégg ngeen ni ko porte-parole Daarul Muxti bi waxee di sëñ Bachir Abdoul Khoudous yaakaar naa ni maam Thierno. bokk na ci ñi mujj ci ay loxoom mooy Cheikh Issa Diène radiyallahu anhu ba wax na ni moo ko taxawee ba jébal ko boromam foofu ci Daaru mooti ak um njabootam kon loolu jàpp na ni jàpp bokk na ci leen mën a jàpp kóllëre seen diggante waaye beneen bi ci desit mooy Cheikh Issa Diène yëkkati na doomam bu ñuy wax euh, Serigne Mbacke jenn tudde ko maam Thierno Ibrahima Faty euh, beneen biñ ci mën a jàpp tamit mooy seenu njaboot ay relation yu yu mag a mag lañ am ak jaxasoo yaakaar naa lii firndeel na ko waaye mbooloo mi moom bu fekkee ñoom ngay laaj seenub dëgg ma seenub jublu seenub jublu daanaka boo ko bëggee xam turu mbooloo mi ci boppam ngay liir ndax jem ay jam'iyatu tawdiixi wa nashri li injaazaati Cheikh ay Diène noonu lañ noonu la tudd loolu nag li muy firi mooy mbooloo mi ànd bëgg a saytu dunduk ay Issa na ba xam ni nii la doon dundee buñ ko xamee ba mu leer ñu wasaare ko ndax li tax loolu mooy jàpp nañ ne ak am na njëriñ ak dundam am na njëriñ ci lislaam ak dundam am na njariñ ci yoonu murit waaye am na njariñ ci réew mi ndax bu ma nee ci lislaam mooy nitu lislaam la woon koo xam ni ay way juróom dañ ko teel a préparé ginnaaw préparation yàlla ndax wax nañ leen ci jaar-jaar fi way juróom jaaroon ak waliyu bu mag boobu di Ahmad Rachid ñaan ba mu misaal ko doomam ji ak bu feeñee nu muy war a mel loolu borom bi subhaanahu wa taala la lañ ca war a def ñoom itam ci jàng alquranul karim ñu taxawoo ko ba mu jàng alquranul karim ak xam-xamu diine diine islam ba mu jógee foofa it mu ñëw ci sëriñ Touba en 1895. ginnaaw ba mu jàngee alxuraan guddi gis yenentu bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu wan ko ay misaal yuy wan ni dafa war a toppi Serigne Touba kon kooku am na firnde bu leer ci ni moom ak jógam ñëw ci Serigne Touba du loo xam ne da ko làmbatu wala mu dégg rek woote bi daal di jóg waaye ndigal la am ndax ab préparation la am ci ay way juróom ñu am ci lu leen leer laata muy feeñ. bonjour euh, Ibrahima Diop euh, commission culturelle journée journée Mame Cheikh Issa Diène. Monsieur Diop pouvez-vous un peu revenir de façon très ramassée sur la troisième édition consacré à l'illustre homme qu'est Cheikh Issa ah en fait, euh, aujourd'hui, euh, 10 mars, au niveau du CICES, e nous célébrons la journée culturelle de Mame Cheikh Issa Dièye. Donc, euh, on voit actuellement au niveau du Sénégal qu'il y a une crise des valeurs. Cet érudit homme est un exemple patent. Mame Cheikh Issa qui est un, un érudit danañ euh, dans le monde du mouridisme donc un disciple de Serigne Touba qui enseigne des valeurs parce que actuellement on assiste à une crise de valeurs à travers le monde à travers l'Afrique à travers le Sénégal mais cet érudit homme si on suit ses enseignements la jeunesse de ce pays et les talibés de ce pays trouveront gain de cause ils se mettront sur le bon chemin pour vraiment faire de sorte que cette, ce pays, le Sénégal, soit un pays religieux. Donc, ils se sont, donc on va se baser sur les enseignements de ce marabout, qui est l'objet, par exemple, c'est l'objet aujourd'hui de cette, de cette, de cette commémoration de la journée culturelle. Donc c'est un érudit qui rassemblait tout le monde, qui enseignait le Coran. ces œuvres, nous allons tout faire pour perpétuer. Au fait, le thème choisi cette année, c'est Cher Issa et la science. Pouvez-vous un peu revenir sur pourquoi le choix du thème et la circonstance Donc pourquoi le choix du thème Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on assiste à une crise des valeurs. Donc il est important aujourd'hui de, de, de, de, rappeler à la jeunesse de ce pays, ou aux disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, bien à la, au, au, monde actuellement, les gens qui sont donc, euh, dans ce monde, que les enseignements de Moshe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 وفي الخالقين